ate diyaari mu ne du nekkul lu neex de bari wala be bee kunna waaye daanaka ñun yëpp loolu moo ñu war moo bëgg ala dun noo kuula mu ne nit du mun a dagal dugal yàlla ci dara loo koy manqué tooñaati loo xam ne du dëgg itale ko ala ye kuujawoo satan ñi yow yaa ne sa borom bindal ma lu bon lu min ne faŋ ma hiinee faŋ la ye kuujawoo cee faŋ la kero bi nga né yaram lo sa bop yow ya def sa bop lu bon itala ku yow ya bugu yalla bindal la lu baax na min siinin bee fay ko safe kero bi nga xamé né li lay njëriñ ak li njëriñ ñep nga def lolu yow beki lolu yëpp nga def ko biri mbaaro bita mu ne mbaalo bu muy dem iko e, bu buka keeku ñu ne ah, eh, eh, eh, naka bahima yi mooy béy ak xar yi ak nag yi lu ñuy def lu lu lu baax awuñ yoon bu baax. li sembo warta minti wo koo taj. seetal ñoom nu ñuy dundee mooy loo xam ne képp koo xam ne ëpp na keneen ki doole dafay daanu ci kaw. ñun béyan jamaa bee ki mu te béyan baa ci ne la musoo mu ñun jamaa bee. mu ne seetal rab yi yëpp benn rab de moom moom daanaka soxna yi si rab yi yëpp. ala ko wonde si la. mu ne yàlla ne loolu du yoon nag. ako mbali maa koy la mu ne dinaa te dimbalé len bari keminti def wa jaalakum muluka dama len def wa jaalakum mulukan be mum man salati de yëpp bur lañ adiyate nekhna la ye faabatu nga top sa baay adiyate sula nexe neexee soso nga weddi sa adiyate sula nexe ikaram mo batu nga topp sa sëriñ. niyaadiyaatee. su la neexee. ak soosoo. weddil sa sëriñ. naadiyaatee. su la ah? weddil sa jëkkër soo de soxna la. naadiyaatee. su la neexee. Ah, ko. ala foofu soosoo. su la sa weddil yàlla sax. naadiyaatee. su la neexee. yaabatu. nga jaam ko topp ko. wa jaalakum mulukan. wa jaalakum mulukan. alimu man sa keeleti. mu ne ay buur ngeen rek. moo maa de kumandi. kenn commandé wul leen bara aliye min aliye min ke waaye li ngeen def ali jeminti loolu lu ta lu mu leen def wata mun na daafirna loolu moom du mun a du mun a nëbbuti ci benn mbindeef alimu aliye min li ngeen def ci seen bopp ah aliboo jëlale loolu moom da ngeen koy gis yàlla mool kee fambatandi baaji xam nga nit ñi dañuy xawa a seen bopp lool nii ko kaariman beteyaa suñ la diw baaxut aka kaa tol min nu la yéen mi nga xam ne yàlla koy def akaali ɗimi daf leen ay naqari lool akaali dewu daf le a jaxle lool dugarala tujee yandi bàyyi leen ko kuukurun ya kuukurun ceelaanoo le mu ne defkat lu bon lu li moo man kuy def lu bon konkurun ye kukurun kela noo le lu bon dafa mun koo xam ne dafay def lu bon nga ne jawo ye nga ne jaw tiyo noo le koo xam ne eenam bi dafa bon eena bi bon bi moo ko man moom ci boppam kuma kurun ye kuma kurun foolaa noo le koo xam ne dafay wax kat bu bon kaddu bu bon moo man kuy wax kaddu bu bon kele laa keloo yaa faŋo noo le hani moo maa ma mu ne xeexkat xeex moo koy man donte kenn laalul ko laali ye moo je kukurun laali bara faaye bara ali ganaa ni su ngeen jësee nit muy def lu bon ko yaram waaye من عمل صالحا فلنفسه يلا دفنا من عمل صالحا فلنفسه نم يكون يما كما ما كموي من كب كدفل باخ دفال لوكو كين يا كي فان ولي سبب بونغا دفال miyeku jawo ke ku def lu bon tame fa alayha fa alayha yala kuma min ganya be wala tan ah mu ne bop bi nga teg moom nga sendi bari amam al qadar waaye amam al qadar nag alala la ñino kan li de la dogal aya le tele kay temi yaaji yow mi ko def yow la ko enu nga yaakaar ne kenn nga ko enu ala baroma mu ne ba yàlla ak jëfam naa ñi ñaata su rafetee wa in kayran wa in kayran fa kayru fa kayru wa in charran fa in charran fa sarru ni a beteyandi suba so baxale yefam ma koy le dimbale nga sa bopp ni a jawuyandi soo ko bonale moo mee kele kenn xeexul la comme i fan comme sa bopp yow mi itele fan kele yaa xeex sa bopp kenn xeexul la siñi long nañu xam ni adama di wunaa bete ada doomi aadama su baaxee nga kaari maa koy na ngeen a wax ne nañ dimbale diw nga alaaji madiba maa koy alaaji madiba nañ ko dimbale abdul bari abdul bari nañ ko dimbale ala maa koy fo ala sali maa koy waaye nag dimbale leen abdul bari ndax yàlla dimbale leen barali kana maa koy fo ali sali kana nda kana dal ah waaye bu leen ko dimbale pour rawloo ko moom raw na ba pare di baara kenn dooy baara keela keew daa kanandili xanaa xam loo kuy jëf jëf bu baax jëf bu baax boobu moo ko rawloo moo ko mucculoo di moomin sanji jali ki nga xam ne ñaata at ñi ñonka fo ñoy ka be dañini mbooloo mu toll nii danga koy dundal sun karooloo de sa de be dañini mu ne wer bi taxaw nga dundal di yëpp yettuloo diya bee la nga jox yëpp diw ye saafunoo diya bee la jox ñëpp saabu yéegu domoroo diya bee la nga jox ñëpp satal la looy ragal fooy gale bétaadaa la ci xanaa yow yaa a baax yàlla yee joy saafaya bee kaa ñam dale wallahi su la yàlla fay nga ne na والله شوفك كم يا يلا والله يلا دنا لا توب الى يوم القيامه دنا في ادم ادي موسى بالو دومي ادم انا دوندو أه! موسى بالو من اه دومي ادم انا دوندو ني دم مو بالو ني لا في بالو من سو دوندو كن يو دنا لا دونال هي امام بالو من يو دوندو لو كون يا بالو ني لا دنا دونال ني من فم بالو سو دونالو دارا امام بالو يو دوندو لو علي بالو نديرو كي واي نانين دوندال واي ني كده حيتي ها أه؟ su fekke da nga nek lu ñu hayyu istahid hatta takuna muhi istahid hatta takuna muhi ya jabalu ndir laadi de na nga nek koy dundal de ni ala keda, su fekke da nga royal balu dale balu dale yalla dafa dundu tama dundu ala man dawodo de yalla ay mu fofu ay fenal balu ndi yalla dafa am lu mu dundal ay ki mu daf la yoni. tok tangonon to mi jom ñen fukki ak to be keeda lol la yep don lu lu allah rek ngoto le keedano la lol de ken mun ko do bangi do bebe keedani way lepp lo ci tuma bi je hayyan su la defé hayyan kun muhiya ah kun muhiyan kebalu ndiri la su la dundale yo tam na nga nek dundal kat nga fa jaman mi mu ne wax na ko fi yagut ngo molu mu ne nit ñi alkamira da ngeen yaakaar ne di xelal salika mu dale julli dañ koy nangu non salikili ne ne mamut mu ne ben julli nanguñ ko ngaar wala mu ne xam naa li may wax benn julli nanguñ ku yaakaar dañ nangu sun nene mam muta mu ne képp ku sa or dañ ko nangu nangu jaka boo nene mam muta ku yaakaar ne sa asaka dañ ko nangu sala boo nene mam muta su sa sara dañ ko nangu tigi benn aju nanguut maa ko wax maa ko wax abuka muta mu ne du nangu or nanguut aj nanguut julli nanguut asaka nanguut sarax nanguut kenn ku yaakaar ne dañ ko ñaara ñeneen kaay kaay mu ne ande yaa muta itamudala ñu ne su fekkee da nga laajte yàlla lu tax doo nangu ako yee dungalale ma keññi mu ne yow dañ le ko santaane waaye defalloo ma ko di man yàlla eh, yee dungalale ma keññi yow dañ le ko santaane rek waaye defalloo ma ko man taaye boo dungala yow tamit demal nga try ni wala ke lu ni nga soldo fo nga santaane keneen mu julli kooku su jullee ma nangu sa julli keneen woo karo karo su jullee rek ma nangu sa julli mbool be scénario la nit ñi dañuy caaxaan waay ngana dale dama mucc wante de du loolu de fay kana diroo kele ba da ngay muccal di nga sodole dama ko am wante de du loolu de fay moolu sodo ndaalale ba fexeel ba nit ñi am di nga bi dale xalaat na wante de du wemol tamminni le ba xanaa yow da nga jiital nit ñi kon konon korda doolu bi jam ah mu ne am na kër yi fi nekk démb dama bee bi jee am na lépp lu fa nekk ni dara jee bii soo fa demee tey ite seen tara la jee doo fekk ci kër yooyu jamoolu kafu ñooma ñu bool booloo nit ñi ka balu janku ñu ref balu woo ñu defetal seen dund ka wolu dookuñ ñu liggéey loo ñooñu ñoom seen dundu rafet ñooñu liggéey man naaw kama mu ne loolu taxu doomi aadama jóg de alkana moolu dookundi waaye bu leen liggéey loo nit ñi an ni moolee dookuwo ke ni ngay liggéey na ngeen liggéey ali moolu dookul ñooya foyali ceeta na ngeen liggéey ndoor ak nit ñi ba ñu roy leen ila kordaɓe ñaami ñaama kordaɓe e kew ñaama ma ne sa kër gi nu mu mel na kër yëpp nu mel noonu ila londooɓe ñaami ñaama moo bee e kew ñaama ma sa xam-xam nu mel yëpp xam-xama mel ila naafulo ɓe ñaami ñaama bee e kew ñaama sa alal nu mel alal yëpp nu mel noonu loolu naafulu diyolu ya teyta mu ne borom alal seen kër yi tas na wandi diwlal nun doo ku wala ye ngay diwul ye doo ku wala ndaxte ñoom doomi jaambur la ñuy dey di leen liggéeyloo pour seen doom yi biri wakkeda ala koye ko bu loolu amee yàlla ne moomu doo ku ñolti moo manke doo ma ne doomi aadama liggéey ndoor la du koy liggéeyloo de liggéey ndoor la du liggéey lu koo xam ne da nga doo ku ñaw la mu da nga koy ndoor la doo doo ku ndi ko xam ne da nga ko war a liggéeyloo min yaakee li tax loolu ima keeku mu ne ki def loolu xamal ne def loolu baax de wayaatin na loolu tax na bee moosi sila ñin kuunaanoo la mu ne doomi aadama na ragal ñeenti mbir yi i kaa bee dadaa defar yëpp ni moo naata su nit ki ñëwee a buga terrain san du jënd terrain a tara janne ah terrain bi fii la ko fekk di waatu a tara janne fii la fii waxtu fii la ko fekk di a soto min na li a kaa fan tiñaawal ah la de a ka fan sodo lu muy amee boppam mooy kuma kaŋo le la ci kaddu min diŋaa da li yàqu a fa a ye mu ne fo ah, wax ko ne loo wax i ma ñan na min fo la loo wax loo war warta wax moo la yàq min diŋaa da ki yàqu a fa a ye mu ne ke ko loo def i na min ke la loo def moo la yàq min diŋaa da ki yàqu a fa ye mu ne ŋaniya lako loo eene i ma ñanna min ŋani loo waruta eene moo la yàq min diŋaada ki yàqu a baa ye mu ne miira ne ko loo xelaat i ma ñanna min miira li nga waruta xelaat moo ye kuuloŋ mu ne nit na xam dara foy si kana ndax nga mun a mucc doomi adama war xammee dara ndax mu mun a mucc de moo si kuuloŋ nit na xammee dara ndax mu mun a mucc ah ñin ta saba in daali kana la mu ne kurusi du leen mun a mucal de kurusi ala too foote moolu kana la yàlla du leen mun a mucal de billahi moo tee faŋo moo tee faŋoto mu ne nit ki nekkut ci boppam moo tee faŋoto doomi aadama nekkut ci boppam min bee faŋoto li nekk ci yow moo teeto ala teetu nit nekkut ci yow yàlla nekkut ci yow bari nii be moolu to waaye soo fekkee yaa ngi ci yàlla nii ye moolu ñaañi nii man laa ala ah su fekkee neexal nañ nit ñi kon yow wóoluloo yàlla ndaw ren ko jimila mooy koy mbee ñaañi noonu man de duma neexal kenn wote man sa ceeb du ci buur ate loon naatu du ci borom xam ate ko di tiitu du borom alal ntaake duma ko def moo mooy moo tiñaa képp koo xam ne yàq nga doomi adama andu wo si adan na mooroolu ko noo ah loolu bari na si suñ sëriñ si de ala to siifaaɓe mbulu <laughs> maa ngi am tur yàlla moo xam ne <laughs> ne ni maata ñoola <laughs> suma jànkontayo suma wuga geela naali me jani mu ne lakkle isaali jani mu ne lakkleen tur yooyu bu dul tur yooyu na leen ba isaali jani su ngeen lakku naali mee saare su ngeen suul isaali saare tur yooyu nañ leen suul billahi wallah wallahi maa gën ci yàlla su ngeen suul اتبعوا ما تدل الشياطين اتبعوا ما تبعوا الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا الناس السيرة ويعلمون الناس السيرة وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول كولا انما نحن فتنه فلا تكفر من نانغي كو سول نانغي لاك تور يوي فلا بهم كافرون من كيب كو ري دومي ادم افرغا سول لن تور يوي بولا سودول تور يوي فلا بهم كافرون لاك لن تور يوي بولا تور يوي نان لن لاك بهم كافرون كيب كو ري دومي ادم افرغا نان لا دوا جابي جوبي ولا من بول سيل مان سوما نيا دا فاي نام نعم famujanira ala muyiti fay fara muna yo dangal lak sabo po benga de sebu dum ala be diamu mon yo mon yo yo nekulo daru domi tal domi tar e kulo ko le ata ah muna fot bi na kharina kulo ko le ata muna xam dara na kharina kulo ko le ata muna xam dara na kharina dino muna dina bi de min be kering li xew ali ab dino nga muta sun dina bi nañ ko tiye kila nata minti يونس صلى الله عليه وسلم لم يندي كايت دين سفي دا فام بن كايت بو ناغوما بيندي كيلا نا تا مينتي لي خامنا لول يالا نبي لول موكو تاخا جوك ولا مو نينتي لول موي وجعل لهم الولايه على امم الارض وجعل لهم الولايه على امم الارض بانكو من السوفسي دا في ودا تين لب لو خامنا يالا داف كو بيندي نابي جي سو فك مي سي كاو سوفسي انيا كايا جيتام محمد لا مولد محمد صلى الله عليه وسلم ختم لا ختم لا محمد لا مولل ختم لا دي وجماعات البصر وجماعة البشر وجماعات البشر وجماعات البشر فاطمة من كو خامل دومي ادم جماعة مومي مولو مي ييب محمد لا ديم ديمبايا من نيبوت يونت بلا دي يراكبون سيرها يراكبون سيرها إتانيا mu ne ni ñuy doxee ñanta wala korosi la loolu la ñu war a wottu fo kiilaa taañaalo ndaxte noonu la di yonent bi doon doxee fo kiilaa taañante wala doxin yonent bi kanoo man dara mu ne mucc laa man jaali xayri tariqi laa man jaali xayri tariqi kii laa la jamaatanoo mu ne yonent bi salaa salaam mboolam bi wata kana la de ñooñu duñ mucc de wata kana la ñooñu duñu mucc ata kana la ñu duñu mucc yuraaqibuuna sayraha yuraaqibuuna sayraha di mool la taaña nit ñi ni ñuy doxee daa soog la taaña mbindee fi ni ñuy doxee moo ñan daw korosi ko war a wattu selu ko wa siirataha wa siirataha ani ak ak li li tax ñuy jox ak ah, wala nit ñi ni ñu ni ñuy wee mu neex leen si siira bi moo kenn doon la balu nit ñi baax niñ dundee naka lañ dundee moolu ñanta nit ñi dañ war a xam ye wala korosi loolu lañ war a sellu duniya diyandi mi li nga xam ne ñooñu àdduna neexal la wa axlaaqaha wa moolu daa jikko jikko yow yi wa ragabaatiha wa ragabaatiha i lafta mu ne la ak liñ bugg ak liñ memet walu lafta mu ne la ñooñu lan lañ bugg fooy kanata ba ñu mucc fo yaa soto ba ñu am li ñu am ni wakeda su loolu amee nadoo guo suñu liggéey bi fa yursiduna daal fa yursiduna daal min filite kaw ci seeni le kon képp koo xam ne dafa réer kooku dañ koo ginde damin taadulande dañ koy yow fi nga jëm du foofu nana njaa kana kaay nga ñu ñëw fi mucc wa yurudduuna al gaawi wa yurudduuna al gaawi min filita ku réer jaabonni nan filoo siloo kan ñu génnee ko ci yoonu réer jaalonde kandoo siloo ñu teg ko ci yoonu njub wa yuslihuuna alfasida wa yuslihuuna alfasida min tiŋaata ki yàqu yàqu ñu raxas ko sangu ko yaadada ñu defar ko wa yuqimuuna al awada wa yuqimuuna al awad min jengeda koo xam dafa jëng yaa tembe ñu jubanti ñu daldi ko jubanti yaa tirindi nañ ko jubanti wa yarabuna wa yarabuna sada sada min teeta اللهم هم ندفر آه، يا يا دادا ننكو دفرات يا دادا ننكو دفرات ستوجي ويأخذون ويأخذون للضعيف للضعيف من alxawi min alxawi nin sendemaal koy ɓe tullunna lamponugun la so fekke borom doole dañ buga cahane ñoo xam ne amuñ doole borom lompon tati ñiñi tandila ala e semboɗin tolle labina tol ni koye ɓaali kumbondilan tol ga faa a ah nañ len wolle ne ñu len yàlla jox doole bi tey suñ leen buga joyloo kon ñun dinañ ci des waaye du am mukk wa in tasfuna lilmadlum wa in tasfuna lilmadlum min alzalimi min alzalim iɓe tilinteya ñininna nañ ñu ut njub tooñeeri laa bulu koo xam ne day tooñ ay min tooñee ki mu tooñ dañin tooñee la doo ko tooñ de yéen daa wala kama ñu loolu moo tax ñu bind leen ويقيمون ويقيمون في الارض القسط في الارض القسط استيلين دياتا ñu dal di de jub yaa duumandi ñu saxal ko bankoo kan ci kaw réew mi ويبسطون ويبسطون على العالم على العالم يتفين وراك ñu dal di على الداسون بيكا ñu dal di lal ci mbinde fi جناح الامن جناح الامن لما نيا loo xam ne dafay nekk xoolu te ba mbagam yi yàlla bee nañ ko teg ci kaw ñëpp ñëpp am kóolute seen bopp même mu ne këpp koo xam ne du jullit même manqué musulmet ki nga xam ne du jullit wala ka dimu sot kooku mooy am doom de kooku mooy am doom kooku mooy am doom oo mu ne mbag bu alaku wala ka dimu kooku mooy am doom i be jumaa man mi wulu ma ne ana kan ngay gis koo xam ne juruloo ko yow mag ji ite koy dingu yow nga ne sa doom nga ñaa dingu la yow ngay noose sa doom ni faalu bee yaa su fekke baay yëpp ñoo ko jur na ko puugaroo kooku mooy doom puugaroo ko nga ñaa dingu la na ko puugaroo ni faalu bee yaa su fekkee baay yëpp di fundida dombogi e baluka bala kulubaliya kono a niña bagiñoitami ya wulu ñon tiñarlade keri mune yow mi ko itama ñanna wulule faw ma ñanna sotola mune yow so juro dem ni ñange wax xamadiyam yo warlo am doom ima ñanna wulule faw ma ñanna yo warlo am doom yow sabba fo warlo judu nafatala amul ñeriñ di adama diŋ doomi adama ni bete ada so baaxee toñala muy la musoti sa jabar dëgg tooñaala muy la musooti sa jabar de dégg la ci yow naata siloo kan su nekkul ci yoon ab ni min kuyaata képp koo xam ne na wala muy la musooti ti teti ku de mooy sa soxna ci kawam moom bara gën mu su muso waaye man suma jabar bopp ataata ala fan su njoŋ tooñi oh, mu dem tooñi jaamu yàlla eh, eh, eh, tenkuŋ ite sembo di dafewunukum pata ni ye dala wosi mansabaye asamota kane fansi kandi initanobe mujonoti ni ye taje tumado atale ye dai kanajele kelo manke fenti fakukurundundula sifat ni ya tambinyinna bari minnu ka kete kisala ifallon yana alalon jawlu silon isi kano isi tantuke munafaila te fasilela ye bula inya tantu hakilo tantu sewo jamani la muhammadu salimu denta watila batata ta halako bantak nimisolu bayitak dahanata nemo jita nii man sabatela man sabaye asa